xalam dafay am waaw euh, boo ko seetee ndeysaan doomu soxna bi raw ci doomu soxna yi mooy imam Suyuti te dal na ko parce ci charxam bi bayt bi mu ni def ko bëgg féetali jarir jarir waxu ko waaw la boo xam ni kenn du ko ci bindal bàkkaar parce que boppam ba la ca nekk ci ay bayt ak phrase ëpp na téeméeri million di jàllar bi ko rek kon moom kenn du ko jàppe sabqul lisaan mënul nekk kenn du ko jàppe sabqul qalam mënul nekk waaw wante itam li Maodo waxoon ba muy bind ba muy bind arudam ba te ndeke am na bayt bu ci damm te yëgu ko mu ni muy yéen mas ngeen gis kuy jàngale arud te fekk loolu dafay am amul solo euh, xale bii ma doon tudd léegi euh, xalilu bnu ahmad wax na ko nee na orateur am na luñ koy baal nee na orateur koo xam ni dangay wax te doo xool kayit ne am na luñ la war a mën a baal nag moom moo ko waxal boppam moo tax jum juum yooyu ba nit suyut yi jëlee wax bi jox ko jarir te jarir moomu ko euh, al awaam Cheybani yi moo ko moom waaw waaye dafa fekk yëf yi jaxasoo ci boppum jaxasoo jaxasoo jaxasoo jaxasoo yooyu du bàkkaar du bàkkaar amul benn solo waate Suyuti ku ku amul morom la ci doomu soxna yi moom la ñu tuddee Abdourahman Sax Abdou Si moom lañ ko tuddee waaw euh, mag ñi dañ ko fonkoon moo defar tashjir benn méthode la bu nga xam ne moo ko génne boo bëggee jàng langue étrangère ci ci fukki weer ak ñaar pour dégg ko mën nañ la ko jàngal ci ñeenti weer nga dégg ko méthode bu am solo la mooy jur pyramide yi ngay gis ci télévision yi ak chiffre et lettres yooyu yëpp tashjir a ko jur imam Suyuti yi moo ko génne may ko humanité bi waaw mais tey li ko tubaab yi jariñoo moo ëpp li nu koy jariñoo parce que ñun ay primaire lañu ñun ñooy arab yi léegi ndeysaan wallaay ndeysaan ñun ñooy arab yi pexe amul ay primaire pire lañu yu desul dara nu yeboon nangu ko rek te jàpp ci yàlla billaay moo gën pexe amul ba tax na kon affaire bàngo ci liggéeyu jàmbur ngeen nekk ah tabarkalla tabarkalla borom leer la yal yàlla nàndal lu ci leeram ci barke yonent bi ak ci barke guddi gi itam soxla yi bari na yenn yàlla faj soxla yépp te mu ànd ak jàmm waaw ah, sëñ Babacar daan wax de bu ngeen dee ñaan jàmm da ngeen ñaan jàmm ju tuuti ndax jàmm ju bare baaxul nee na dafa tax góor na sax waaw di leen ñaan

bu rëy buri bu rëy dafa tayalloo nit dafa tayalloo nit yallaahu yallaahu maw doy wax de ne dafa ñaan confort parce que confort nee na nit bu yiw bu ne war na ko ñaan confort waaye na nekk confort bu ko dul tayalloo yallaahu yallaahu farzuqni rafahiyata ليست بواهية رب الخليقات مينان كونفور مقدول تايل وخامل دوكا تايل واي كونفور فرات واي بودول تايل لو نيت كي رك باخ اي بو فكه تايل لو نغا تد li Moussa Fall daan wax ne ma jaaxaan rek damay jaaxaan ku ci dëkk doo doo fay sa soxla kon nag ñu ñaan rek yàlla taxawuñu ñu ñaan itam yàlla ubbi bët yi te ubbi xol yi ba lu nu gis xam lan la lu nu yëg itam xam lan la tabarkalla tabarkalla loolu lañ koy ñaan di ñaan itam tabarkalla tabarkalla fekkee déwén ak jàmm yàlla may ko njaboot yi yu góor yaag yu jigéen yi ndax dañu tollu ci jamono bu nga xam ni li yonent bi doon wax yépp ñëw na nee dingeen di àggi ci jamono bu nga xam ni musiba yi dana toll ni niir yi ci asamaan waaw góor boo gis muy dem mu ni da yëg ni dafa feebar moom ku ragaloon si biiru la yonent ku ragaloon si la xanaa dafa yëgoon ni moo koy yóbbu parce que moo ko mujj yóbbu waaw ku ragaloon si la alxumma walaay ci daan muslu tabarkalla kon nag yal na nu yàlla aar te itam rek nu bàyyi xel ci ni médecin yi jar nañu ormal leen li ñuy digle ñu def ko waaye ñoom it ñu ñaan leen ñu coopéré nag ak sunu boroom maanaam di ñaan di ci boole waaw ndax bu jëkk bu feebar masaan am ci réew day gis mag ñi daañu dem bay bind turu yàlla di ko taf ci buntu néeg yi ngir bañ mu dugg ca parce que fokk médecin dafay coopéré ak boromam mënul ñàkk di ñaan rekk nag di ñaan rekk nag di ñaan rekk nag tabarkalla tabarkalla lii kooko laaj ci Tiwaawan dana la ko wax sama sëriñ bu guddi masaan jot daf may bàyyi ma génn ci mbedd mi di tari alquran te dañ ko daan tere ba yàlla won ma li ñépp gënoon na ragal ci àdduna pexe amul fekku fi sëriñ Babacar Si Alaaji Abdul Aziz la fi fekk mu ne ah gàccaam ndax kat lii fekku fi sëriñ Babacar Si te xale bi daal dafa ne kala ken xamul lu ko lo ngor gi mo ñëw ndax mom mbiram ken xamul ñi nekk ci dëkk bi yëpp daf leen xam te duñu nit daf leen xam waaw kon nag su nit bindee naan la booy waxtaanati bul tudd iblis ndax intellectuel yi gëmuñu ko te yàlla tudd ko ci alquran kon na may def kon na may def foog ma tudd iblis bu dee xareek ma nit ma tudd ko dara la ci mën yàlla àtte nag ca fan yële passé ma gisaat ko fekk gëj nañu gisee ci Tiwaawan ndax moom memanggil jangkar orang xale yépp xam nañu loolu lu wóor la ñoom xam nañu ko ndax tabarkalla tabarkalla tariqa bi dafa bari njaboot yàlla nga ko dimbale dimbale bu mat sëkk yàlla dimbale ko ma nga ca tarbiyaam yàlla dimbale ko amul sax loxo ndax bi may nuyu joxuma loxo ndax amul loxo wallahi wal quraan al azim waaw dama la doon seet si ne ko tabarkalla maa ngi koy yërëm wante mi ngi rafet bokkul am na mu meloon bu jëkk mu ni ma man de dama amoon soxla boo xam ni dama bëggoon ci mbokku taalibe yi ku ma defal sarax ma ne ko ah ma ne ko noo bëggee mu defe ko mu wax ma ko ma ne am naa benn mbokk de sama doom bàjjen la ñu ngi ko wax sii Sidi Njaay ma nga nekk ca Piquet man naa ko ko wax mu ni ma entièrement d'accord ma wax ko Sidi mu defal ko ko après mu ñëw seet si ma pour wax la ni ñoom lépp a ngi ci ñoom parce que loolu itam lu yéeme la lu yéeme yéeme la ba ci pompe yi ñuy pompe pour yoo di dee ñoom dañ lay ñaan ni parce que dafa leen di lor te comme mënuñu jóge ci xadara bi ndax taalib bi lañ ci dafa leen di lor leen di te ñoom am nañu seen pexe bu ñu empêché pour mu def dara kon nag nañ leen bàyyi ñoom ñu ñu def seen pexe te ñun ñu bañ leen pompati rek man loolu laa ci xam parce que am nañu pexe man loolu laa ci xam laajal ku la neex depuis ñu wax ma ko léegi ñemeetuma pompe ñemeetuma ko ñemeetuma ko pour wax la ni ñu ngi fii talibé jamburu lañu waaw ñu ngi fi talibé jamburu lañu ñu ngi fi talibé jamburu lañu jazallahu rabbun nnaasi khayra jazaihi ka ko doon wax kan la ka ko doon wax ci diggu guddi kan la jazallahu rabu nnaasi xayra jazaihi rafiqayni qaala xaymatay ummi maabadi mi ngi ci téere yi ka ko doon wax du nit te nu ngi koy tari ba léegi te ka ko doon wax du nit est-ce que jàng jàngu leen sóoratul jën waaw ah. kon nag nga ne intellectuel nga rek doo ko gëm doo ko gëm bu ko waxati fii que intellectuel yi gëmuñu ko yan intellectuel ñoo ko gëmul wax ma leen ah. parce que lu alquran tudd mënuñu ko ñàkk gëm mënuñu ko ñàkk gëm ba tax na nag eh, di bàyyi xel ci njàng mi li ci am njëriñ nga jël ko waaye li ci amul njariñ rek nga wat su ko parce que li xew léegi kenn xamu ko li ñuy bind ci téere kenn xamul na mu toll waaye itam du tax lu téere wax nu gëm ko bu fekkee jaarul yoon du nu ko gëm loolu rek mooy li ci nekk bind bind bind bind bu jaarul yoon du nu ko gëm loolu mooy li ci nekk tabarkane lu ci jaar yoon nag mu gëm ko boo ko noonu rek la sunu boroom lu mu tudd ci alquran rek am na loolu am na tabarkalla tabarkalla yàlla xam na ko ba tax na rek ah njàng mi daal nu ngi ci waaye itam nag du tax du tax li nu war a gëm du fokk nu gëm ko mënul ñàkk bu loolu paasee ñu gën a feddali ndax Sëriñ Moustapha bi ñuy ñëw jox na ma yóbbante sama wàjjur bu baax bi di sama kilifa di sama soppe muy sëriñ Saaliw sëriñ Saaliw Mbakke tabarkalla na mu daan def defati na ko jox na ko sëriñ Musaa sëriñ Musaa indil na ma ko tabarkalla yal na ko yàgg war na yàlla yokk leeram te jofi ko ca leeri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg nañ ci lool ndax ah, dafa rëy ci ñun waxuma la dara waaye kàddu ya mu koy booleel rek jar na lu ne man nag sama xarit la démb démb démb tey soog a ñëw booba demagul sax Tuubaa booba ma ca dëkkam ba bu yónnee ma ndaw ni boo demee neel cheikh bu dee dem a ci vacances na ñëw fii ci man waaw ah. ah, waaw fii lew na ko mën na fi def vacances ma xam ni loolu moo jàddu tabarkalla tabarkalla bi loolu passé itam yóbbante yi président Ablaye Wade yónnee tabarkalla jot nañu ci yal na ko yàgg war te yàlla defal ko yiw loolu baax na ndax itam ba nu àndee du tey wallaay booba nun ñëpp ndaw la nu wax dëgg yàlla mu nekk ca Addis Abeba mu nekk ca Caire yàlla xam na ko booba du tey booba du tey te waxuma ko pour pour trafic d'influence du sama jikko sama jikko trafic d'influence moom baal naa ko ñëpp du sama jikko waaw dama xam ni rek bu ma leen ko waxee ngeen bët ci du dëgg loolu moo tax ma wax ko wallaay ngeen xame ko noonu kon maa ngi yóbbante maa ngi yóbbante sama sama copain yi <laughs> pour ñu waxal ma ko waaye euh, sama gànnu tubaab bi nee na ma bul waxati copain ndax euh, ëpp nga ko del wax sama camarade waaw ma ko benn la mu ma mukk du benn mu ne ma dangay seet sa papa boo seetee sa papa dootoo wax copain mu camarade rek ngay wax ndax itam nit dañ koy sédd mu ne ma neexoon ma fekk dundam boo fekkoon dundam danaa nekk militant parce que xamul luy taalibe militant lay wax te tugal yépp moo fa dama koy wax ni ko

te it maa ngi ca yoon wa du dëgg mu ngoog tubarkal la ah bu loolu paasee nag tubarkal la tubarkal la sama doomu bopp ci tubarkal la yal na yàlla yàggal suñu diggante te yàlla defal ko bëgg-bëggam ak Serigne Cheikh sama wëllëre la woon lool ba mu ëpp walla yàlla xam na ko dañu daje Paris ma waxtaanal ko mu ree ma ne ko lu tax doo ci Sénégal mu ne damay bañ ko ma yem <laughs> wallaay Sénégal yi dafa gaaw yàpp kilifaam looloo ci nekk ndeysaan moor moor moor jama moor jama nee na na ma la ma la fi nettali ma ne ko waaw mu ni ma Eh, texte bi ci dese ngii ma indi naa ko yéwénal naa ko ma ni ma mooy sama mooy sama na ma ko waxeeti mooy sama julli ga woon ca wasamaay wa taarixi ja wallaay ndeysaan mu ne ma xam nga daara ji maa ci gënoon ne niil maag duudu ma ne ko loolu kay xam naa ko mu ni ma ñaan xooñi rek laa daan def ak ndes tayit waaw dëgg naa am na fi ñu xamul ndes tayit xamuleen ko de ndes tayit ci yinde lay nekk mooy wër yinde noonu waaw dafa neex mu ni ma mag duudu ñoo gënoon ne niil ca dara wër ñaan xooñ rek ak di ñaan def sayit lañu daan def wallaay mu ni ma nag ma dem ca dëkk ba rekk di julli timis ca jàkka ja ilimaan ji ñu ni ko ku jóge daara ji ñëw na fi mu ni kon nag duma ko jiite ni ñëw jiite nee na wax wax mu jël kaal kaala ga rek teg ko ci saw mbakk nee na mayit xam nga bakkan rek mbéy timis inaa tey naakal doy na ca nee ma jël wa samay wa taarix rek ndeke mokkalu ko nee na in kullu nafsin ji lama alayha hafizun nee na suma lu jate ko ma ni ko ngëru ko mu ne ma ah loolu kat ña doon jàng ko xam waaye ma man mi jàngul kay jàngaanu lu dul di wër di ñaan xooñ ak ndeseye kay lu ma ci xam nee ma ne xaafisul ah, ñaar ñaareel ko ndax bëgg ñu gàggan ma ndeke jàkk ji kenn mokk lu jëw samay patal nee na ma ñetteel pour ñu gàggante ma ñu defe ni dama bëgg ñu répété ko comme man ne ñoom ñëpp ñu àndoonoo yaa nee na ilimaan jënni subhanallah subhanallah ne ma ni tey laay dee nag nee ndeke duudoo ngi ci dugg si nee na te dañ daan xeex noo gënoon a niir ci daara ji nee na mu moom la yàlla dogal moo may gàggante nee na ba ñu gëjee gisee mat na fukki at ak juróom ci ren nee ma dëgg ci gannaaw ku ma nii fël yenn suru laa la wax man na magesto niko kokana nena moni ma mën a tudd ma ne ko ah xamoon na nee na maa ngi jaaxle ndax su ma xasee gàggante dana yàq sama der bi yépp nee na yàlla dimbale ma nag ma ko kenn du wax fal yan suuru fal suuri la wax neena neena neena neena mu ni ma moyo boo jotee ci sama fal yan surub gi doo daw ba fat neena ma ni ko billaay nag wax nga dëgg xaw na maa dee ne mu ni ma accoru nag parce que timis ji passé nee na ma sogoru ko mottali julli ga waaye ne ci ëllëg sa dàq ne ma xëy rekk wóor na ma ni joxekati àddiya yi daañ ñëw ne ma defaru nag maa nga defaru ñu indil ma sama ndékki ma ndékki ñu indi cuuraay ma suuru ñu jox ma libeñ ma tuuroo ne toog nag di xaar ku ku jëkk ñëw rek indi àddiya nee ni suuti am ku ma déy nii am na ñeent ñu agsi léegi mais ma ni bismillah bismillah <laughs> maa ngi defar suma cikkim si ba mu jekk ma ni bismillah bismillah nee ñu dugg si rek di ñeent nee na ki jëkk dugg casquette ba mu sol ma nga wëlbati këf ko mu féete gannaaw ne mu ngi ànd ak ñett benn mag bu baax ak ñaar ñu amee yëfu rajo ñoo daal dañ ñu yabaloon pour ñu ñëw laaj la ay laaj ne man leen man ndékkee gu te kat ne du dëgg ndékki bu yàgg ne man leen ndékkee gu nee na mag mu baax ma ni wax na dëgg ne naka la ma xool rek gis sama bët yi taa mun leen wax na dëgg ndekkeegu kon nag nan dem moo gën parce que sutura baax na yéen ndekki ngeen man ndekki na patron bi ndekki na waaye moom ndekkeegu nan dem nee na borom casquette ba lank ni ko service bi ma yónni mu ne ko waa service ba borom ndekki na waaye kii ndekkeegul dana mësuma gis mukk mag mu baaxe noonu nee na topp ko ba xale bu ba xale bu mujj d'accord nee ñu dem ba ca kër ga ne ma gis ñu taxaw nee na xale boobu moo dëgër bopp nee na daal soow na mag mi ba mag mi ànd ak moom di dellu ne ma xool palanteer bi fekk doxewul ca mbedd ma nekkoon foofu laa doon jaare pour daw nee na aw ma pexe ne ñu ñëw ni léegi laajatuñu dañ ñu wan nañu laaj ñaata téere la maam Alaaji Maalik def eh, léegi loolu laajatuñ ko waaye nga wax ñu ci benn benn rek bu mag ne man leen bu ci gën a mag ñu ni wax nee na leen bi ma daan yenul mbay biran saar nee ñu ni wax ne man leen mi ngi tudd abada bu rox borom kasket bani ma du deug wallahi ndeysaan ni ma mësuloo deug téere bu tudd aba dabaro waaye ne mag ma daal naxanteeg moom naxanteeg moom ba ñu dem ba ñu ba fa ñu ñu taxawat ne ma ne ah am na lu ma war a bàyyi xel na ne ma yër suufu lal bi seen ci yet ne ndeysaan foofu nag ma yërëm sama bopp lool ne ay waay gémmiñ a bon waay sama ngan gi ni mu naroon na neex nii toj bopp ciy mucc <laughs> ne waaye rekk mag ma rekk takku rekk takku ba yóbbu leen tubarkalla tubarkalla ndeysaan lay ndeysaan kon nag tubarkalla lay ndeysaan na yàlla yàggal yiw ah guddi gi de ñun bëgg nañ ci lool ndax amuñu lu dul yéen tabarkalla tabarkalla nu bokk ñun ñëpp amuñu lu dul kenn mu yonent bi luy ñaan rek ci barke ba yàlla dinu taxaw yàlla dinu taxaw te yàlla dinu ñëwant da sëñ babakar nee na ku nekk ci àdduna doo ñaan yàlla yërëm la ne xaju fi dangay ñaan mu ñëwant wallaay ndeysaan ba nag yal na yàlla dinu ñëwant tabarakallahu kilifa yi fi daje yépp it yàlla téye ci seen loxo te dimbale leen xàllal leen yoon la euh, fan yii yépp maa ngi laaj laajte sama mbokkum bopp mi xaw xaw ma kañ la ñëw ab lay jóg dafa voyagé woon nekkee gàmmu si na yëguma ko wallaay ndeysaan xam naa dafay bañ gàmmu gi raw ko ëpp naa def de gàmmu de bu mu raw kenn wallaay ndeysaan loolu baax na loolu yal na yàlla taxawuñu ci biir ak ci biti loolu baax na di tabarkal na yàlla taxawuñu ci biir ak ci biti yàlla musal leen musal nu musal njaboot yi musal xarit yi musal àndandoo yi tabarkal la ñi jóge biti réew ñi jóge Mauritanie ñi jóge tabarkal la kenn ku ne nu ngi laa xool bëtu cofeel kenn ku ne ñu ngi laa xool bëtu Sëriñ Babacar Si parce que moom rek la nu am nag amuñu keneen moom la am te xam na ko wallaay ndeysaan moom la am te xam na ko lool la am te xam na ko ndeysaan dafa am benn doomam bu faatu ci fan yi paase doomu Serigne Babacar si bu ñuy wax Chérif Aïdara di sëtu yonent bi bàyyam di waliyu parce que Chérif Bachir moo ko jur yëkkati ko jox ko Serigne Babacar Sy sëriñ Babacar si wax ma ci làmmiñam ni ma parce naa ko yéene teg ci sama mbagg ba jébbal ko maamam waaw ndeysaan ci fan yi rek mu daanu feebar ma tëdd ba guddi ma gis góor gi mu ngi triste lool nga amee benn kayit ci loxoom mu ngi toog ci kaw ma toog ci suuf mu mel ni daf ma bëgg a tàggi nit te am kersa parce que daf koy def bi soxna na fi gaañoo bi ñu tuddee na fi mbay mi mu bëgg ma ko tàgge daf ko rus ba mënu ko wax noonu la mel mu toog rek ba mujj mu yëkkati kayit gi jox ma ma nit tërët ci ëllëg sa rek ñu ne ma shérif jóge na fi ndeysaan te moom ma waxoon ni ma daal séddee naa la ko mook sëriñ Habib yépp sëriñ Habib dafa nekk ku fragile mu ni ma te yaay ma gën ci àdduna ma ko wax ci làmmiñam li ma sëriñ Habib dafa nekk ku fragile te yaayam moo gën ci àdduna wallaay soxna Roqaya Ndooy moo sëriñ Babacar la woon moo nekkoon Richard may ñëw Richard pour jàng si fa soxnaa sukkan bind ko lettre ni ko sa dooma ngoog ma ñëw nanguwul keneen fóotal ma ku dul moom nanguwul keneen toggal ma ku dul moom ma nekk routière man rekk ma fa nekk di jàng bu teyee alaji Abdu bindal ma bu teyee alaji Cheikh Ndiaye bindal ma boo lëggee Mouhamed Yahya bindal ma kenn nekkul routière booba barke ñëwul faydu amul waaw tabarkalla tabarkalla sëriñ Habib nekk ci sama loxo Chérif Aydara nekk ci sama loxo sëriñ Habib bi muy gaañu ma nga ma fekk ca àll ba ca biir Saalum ci turne bu metti ba ci rajo laa ko dégg rekk ma wàññi ko fa wut si Ndakaaru yàlla xam na ko ci rajo laa ko dégg waaye mu nekkoon xale bu attaché wu Serigne bu ñëwee dafay tëdd ci sama kaw wallaay ci sama kaw waaye rek gis nga euh, mu jus tubaab yi jël ko mu war a def service militaire bo mu génné dañ ko tagga tagg eh, kayit yépp ngeen ma ak livre militaire am ak yépp tabarkal tubaab yi tagg ko ci tegginam ak xam boppam ak lépp ñu tagg ko wax ni jarbaatu babacar si la jarbaatam waaye barki dem la gaañu kon nag tabarkal ñu ngi ko jaali ñépp surtout di ko jaali waa daayira bi ndax ku fonkoon daayira bi la tabarkal yalla xam na ko ku fonkoon Ken bi kenn mësul gis sang bu mel noonu ndax loolu ah yunus moo mel noonu moo leen jël jox leen mawdo jël shérif bachir shérif boubacar shérif makki ñoom ñett ñëpp mu jox leen mawdo ni génn naa ci tabarkalla ah shérif bachir àndandoog sëñ babacar shérif boubacar àndandoo ak alaaji Mansour ak alaaji Abdu Chérif Màkke àndandoo ak alaaji Abi Chérif bi ñu jox ma ko tabarkalla ba tax na ku nekk ak la la yàlla may dafa am benn mbokk taalibe boo xam ni dafa gaañu tabarkalla waaye euh, tawatul waaw ah, bi muy gaañu am na juróom-ñeent fukki at mësuma gis mukk mu wax ak yow ci at sa xol tàngati ba at ma jeex loolu la ko yàlla defal nga xam ni boog nit ñu baax ñaa ngi fi ba tey yàlla xam na ko euh, may wax nag nii jàngu téere jàngu xol a ko gën waaw jàngu téere jàngu xol ko gën ndax nit kooku maa ngi ciy waxtaan ak koo xam ni ku jàng tubaab la waaye daf ko miin ma di ci waxtaan ak moom mu ne ma man de li ma jaaxal ci moom dama ànd ak moom bés dem ziyaare ji sa Papa El nee na ñu tuuti mu génn moom waa ji mu génn nee na am ci saal bi nit ñaa ngi fees dell ci saal bi nee na am ku wax Alaaji Mansour ni ko waaw nun de dañu jaaxle mu ne ko lan la mu ne ko kii génn léegi ñépp dinañu dem yóbbu téere jàng mom du ko def te fu mu a fekk bu ñuy werante bu ko atté kenn du ca man mu ni ko ànd de dina ko di def ni ko ànd dina ko di def ak dig mu ni ko ndax ñi àndoon ak yonent bi amuñu woon téere te ñoo rew nit ñi waaw mu ni ko te ànd ak déglu rek ko def waaw ma xam ku yàlla baaxal rek nga baax waaw ndax moom alaaji abdul aziz wasilaam sëriñ Moustapha ay xaritam man la tudde taawam bu góor te du waxtaan ak man mukk ci at at ma dana féex ci man ba jeex xam nga ni loolu may la tabarkal la tabarkal kon nag ba tey may yaa ngi fi du fi jóg yàlla yombal ko rek yal na yàlla yombal ko ci biir ak ci biti yal na yàlla yombal ko ci biir ak ci biti yal na yàlla yombal ko ci biir ak ci biti tabarkalla tabarkalla ah fi mu ne nag yàlla xam na ko dama soj ba nirootuma nit parce que damay am toujours soju seen waaw euh, ma ni woon rek naa agsi dama ni woon rek naa ñëw sax toog fële rekk déglu ngeen ngam walaay ndeysaan wante xale yi bañ ni rekk booy boo rekk def ko benn yoon ni man fii laa naroon na toog pour déglu leen ñu gàmm seen gàmm tabarkalla tabarkalla waaye ñu ni ma mukk ma ne àcc ba ma ne àcc su ma turandoon nag moom xam nga jikko fii mu ne yàlla xam na ko wax na ma at mi may génn àdduna billahi lazi la ilaha illa wax na ma ko ni ma nag mi ci yow waaye waaye loolu it waaye lool waaye lool loolu it dafa bare kenn mënu ko ndax dangay màggata màggata màgg mañana, bueno, tu mañana, Elena. assalaamu aleykum sëriñ bi ñu ngi lay nuyu ñi ngi lay ziyaara ñi ngi lay balu àq yitam ñi ngi yeesalit sunu yaakaar ci yow di yeesal sunu pas-pas ci yow sëriñ Moustapha moo wax ni naa la présenté ñiy toog jigéen ñi ñoo di ñi nga xam ni bokk ci mouvement bi tey ndaw ñoo la boot nangoo nekk sa wéy ngir yàlla sa taxawaay góor ñi ci sa kanam da may wax léegi ni ma ñoom dañoo bejjaawandoo góor ñooñu fa tabaarakallaahu ñoom itam ñoo taxaw wax ni ku bokk ci mouvement bi dinañ la boot nekk sa waajur wu góor ngir yàlla ak sa taxawaay mu mel ni nag dafa am lu ma wax sëriñ Moustapha léegi ci biir saal bi booba sëriñ Mansour ak seegul ndax dama wax sëriñ Moustapha ma ni ko ki yàlla nar teral ma ni ko yóbbu ko aljanna wis la ci moom parce que aljanna am na lu ko dàq téeméeri junni yoon mu mel ni kon ki yàlla yóbbu aljanna te fekk na am fu mu jaar ak moom euh, daf koy wés rekk noon la demee ba tax na si ñu di la seedeel ni ku yiw rekk xolam sedd na di la seedeel ni képp ku yéene Cheikh Al jàmm xolam sedd na ñu di la seedeel ni képp ku bëgg xadara Cheikh Al yëkkatiku te bañ a delloo ci gannaaw xolam sedd na ba tax na ñun ñi nga booleeg Serigne Moustapha mu nekk ci kanamu mouvement bi tabaarakallahu mbokki boppam yi ko jàppale di sëriñ Mansour di Cheikh El Hadj Malick ak ñanu ko bokkal ci wàllu pas-pas ñu wax leen ni tey fa tabaarakallahu seen taxawaay rafet na ci seen biir xadara maam ndax it dafay def fu ma waxeeg yow nga ni ma ku defe ni al mustarshidina wal mustarshidaat Cheikh Tidiane comme moom booba juum nga nga ni ma ko ko mooma nga tëdd ca biir bàmmeelam nga ni ma duma leen tëralal programme mukk moom ma ca biir bàmmeelam mooy def lu jot mu dindi ñaari këyit def ko ci xel yi ñu doxal ko nga ni ma lu leen aarit nekkul ci sama loxo dama ko bàyyi ci barke boroom tëraay ba ca suufu soror moo tax lu bare lu naroon a yàqu yàlla ci mbaaxam ak kàttanam mën-mënam ak tëraayam fa tabaarakallaahu dox na diggante almustarshidina wal mustarshidaati ak loola mu mel ni nag bërki démb ak démb ak tey bëccëg la ci bëccëg yi mu nekk ñetti bëccëg yoo xam ni it fii ak junniy at sëtaat yi dina nu koy nettali di ko fàttaliku waaw fa tabaarakallaahu loolu mooy li nga xam ni moom la doon ñaan yàlla yàlla dogal na ko ndax it wax dëgg yàlla fii ñetti fan yi xam nañu ndax am na boroom walla amul boroom loolu la yàlla dogal mu mel ni suñu wax du ci gudd dafa am lu ñuy ñaan rekk di la ko ñaan ci barke góor gi ku nu juumloo woon ba mu ñàkk kurusam nga jéggal ko koo yeesalul du am kurus koo joxul ndigal du am ndigal kon nag yàlla sedd na la loo xam ne amul kenn ku mu ko sedd ci ñi Cheikh al am fa tabaarakallaahu lenn rek nga leen di delloo njukkal li ma sa nekk sa taxawaay bés bu nekk te mooy ko tane dimbale ko tariqatan wa shariatan wa xaqiqatan ci loolu lañu la xam mu mel ni nag tey beneen engagement la ñuy jëlaat ci sa kanam engagement bi nuy jëlaat danu koy jël ak al mustarshidina wal mustarshidat ci seen kanam Serigne Moustapha ak képp ku la yéene jàmm moom lañu bokkal engagement bi di la xamal ni loo joxoñ rekk ñu dog ko ci kàttanu yàlla ñu ngi lay waxitam ni mësunu xam ci yow jikko bu tuuti mësunu xam ci yow ak mbaadoolo mësunu xam ci yow réere sa bopp ndax foo mësa xëccoog cheikh il xalifa radiallahu taala anhu li muy am am cër dafay jékki-jékki jàpp njàmburam waaw jékki-jékki jàpp njàmburam wax ni duma sori ci weranteeg moom ndax jamono bu ma weranteeg moom ñun ñaar bala ñuy eggal turandoom ñetteel nu te moom lay faral lu loolu Serigne kër si waxu ko pour lu la neex waaye daf ko wax parce que amu ci pexe te waxoon naa ca foire ni bu ñu hiérarchiser te hiérarchiser wuñu mystiquement hiérarchiser hiérarchiser mystiquement nag dafa am boroom ku ko mënul nga jàpp sa njàmbur waaye tudd sëriñ Babacar Sy tudd Cheikh El Hadj Malick tudd Cheikh El Hadj tudd Seyyid Cheikh radiallahu taala anhum tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd yàlla jalla jalalu dafa am ñu ko mën kooku bu ñu waxee ni hiérarchie la yow bu ñu la tuddee doo yelwaan cër Serigne Babacar Sy da nga bokk ak moom promotion li ma wax xam naa ko maa ngi taxaw ci xadaraam waaw bu ma waxul lu am rek mu gaañ ma waaw te waxoon naa ni dafa am ku wax ni euh, bu daje amee lu ca grave Pape Malick moo ko wax ma ni ko mais sosuma ko lu ma wax rek ci xaqiiqa laa ko teg waaw te it duma dem ba am 70 ans di waxate lu dul dëkk kooku yàlla may na ma rus naa ko ngir yàlla ak sama kilifa waaw ba tax na kon lu ma wax li tax muy meg damay wax ni toutes les vérités sont graves amul bu ci yomb vérité Moussa dafa grave vérité Isa dafa grave vérité Seyyidna Muhammad dafa grave kon ku bëgg vérité bu neex ak yow nga dem ci ñey teug làmb ak sabar ñu jox la vérité bu woyef way bu dé haqiqa rek dis kon ñuy jël engagement ci sa kanam diko ko lo Cheikh al Khalifa radiallahu taala anhu dila wax ni amuñu ku dul yow dila wax ni yaakaaruñu ku dul yow dila wax ni doyloo wunu ku dul yow ta fa tabaarakallahu doy nganu lo tëralit ci loola la ñuy tënku waaw ñu lay ñaanal fan wu gudd te mu ànd ak wér te mu ànd ak leer te mu ànd ak sutura tabarakallahu ñii la ko yéene yit bokk kook yow ci biir ak ci biti mbooleem ñi la yaakaar kenn ku ne nanu ko natt ñetti téeméeri at boole ko nga dund ko na la ko yàlla defal njaboot yi bég nañu jullit yi bég nañu ku baax bég nga yal na yàlla bégal ci biir ak ci biti te yal na yàlla gën a ci yow asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu si gis nga kii rek ma jur te du Mansour ni mu jure Mansour la ma jure sama digganteeg sama papa ku ne xam na ko famille bi bu Cissé nii jooy ñu bàyyi na ko moom moo jël sama papa keroog ba mu feebaree moo ma jur ci dëkkër bi mi ngi nii ma wax jël ko yóbbu hôpital entré ay di dem di fëgg di ko sama papa yàlla moom ba mu jébbal ko borom te boobu xaw ma sama doom dina dem bëccëg man sama papa yal na ko yàlla def téeméer sallallahu alayhi wa sallam ak barke si doon bu sa mën ko tey man moom la ñu gërëm moom toogal papa toogal. bu la ma xamoon yàlla nii loolu laa la jëme. maa yow ma am dégg dégg wóobu man. wallaay wallaay. asalaamaaleykum. yéen bokk yi fi toog. lu seqoon ko démb séq ko tey te fas ko yéenee séq ëllëg ngeen di ay woy yu góor ak woy yu jigéen ci ndaw ñi di sama bokki taalibe ci tool bi tabarkalla lii jëkkewul tey mën naa téye micro di waxtaan ak yéen tubaab bu xonq coy ŋàbb mitraillette am tiim ma pour bu ma juumee mu fetal ma waaw yéen ñëpp fekk ngeen ko waaye fekk na booba tubaab nu ma xam tubaab ndax Sidi Ahmed si radiallahu taala anhu ma nga faatoo tugal ci geeru 14 waaw ca ñuy wax Salonique ñi ko yërëm dañu ne disparaître na wante ba mel ma nga fa ci des mooy bi tubaab yi jàqee geeru 14 te ñëw ci Sidil Hadj Malick ñu ko ñëwal dem màkka ñaanal nu ndax yi bañ nu ndax fi mu ne sore nañu ci sunu suuf te sunu xol ak sunu xel dalatul Cheikh El Hadj Malick mi ci yem man ñu ni ko kan mu ne alxaji abdul hamid kan ca kawlax ñu jël alxaji abdul hamid kan ca kawlax boobu mi ngi ci taxawaay bu metti di